nee na la sànq moi je je refuse qu'on m'enferme dans des groupes de pression qui font et qui défendent la politique au Sénégal non. je refuse non si si parce que li nga wax ni yëpp c'est des groupes qui et d'ailleurs c'est ce qui nous a amené dans la situation aujourd'hui le Sénégal <laughs> pour la première fois maintenant on fait euh, ni ñu encore des demandes euh, d'études de candidature à la candidature à présidentielle alors que ça doit être une ambition de des nom. demandes d'études oui, ah. c'est-à-dire on fait maintenant des passages des tests des tests pour élection présidentielle. non je parle pas du parrainage. lan je parle du comité qui justement s'occupe d'auditionner alors affaire moo am loolu. d'auditionner <laughs> c'est la première fois. Mhm. au Sénégal que je vois des comités qui auditionnent des candidats à l'élection présidentielle une ambition d'une personne pour son pays. c'est saugournu. comment. c'est saugournu. c'est comment. c'est insensé loolu. pour moi c'est totalement insensé pour moi une personne doit nourrir une ambition pour son pays l'assumer aller jusqu'au bout sans rien attendre au retour d'ailleurs ah, voilà. mais l'assumer jusqu'au bout ah, maanaam nit boo bëggee service sa réew yaay décidé ne man askanu Sénégal jàpp naa sama xalaat li ma sànq nee naa lii ci wàllu wér yaram lii ci wàllu njàng lii ci wàllu courant et cetera nii la ko gisee lu ngeen la ma seen xalaat mais jàpp ma ni may mën a mën na créer benn équipe di auditionner kan waroon nekk candidat kan war nekk candidat. mais le loolu le seul le seul le seul le seul justement mais où est le peuple dans tout ça. mais où est le peuple dans tout ça. waaw Benno am nañu droit. mais am nañu droit organiser wu pour xool c'est quoi le meilleur c'est qui le meilleur choix. ils ont le droit moo tax ma ne la man je ne suis pas de cet avis. Hmm. mais reconnaissez-moi moom le droit aussi de ne pas être c'est-à-dire mais attendez quand même donc yow boo nekkoon bennoo doo doo nangu bokk ci loolu ba tey non non pas du tout parce que je ne pense pas que ça soit la meilleure démarche je pense qu'il faut laisser ceux ou celles-là qui ont de l'ambition pour le pays annoncer leur candidature et le peuple jugera et qu'on laisse la primauté au peuple de et puis ñu ci ban bannière bu fekkee ne 15 ñoo bëgg 15 yëpp bennoo lañ bokk. te kenn nanguwul quitté bennoo avant choix bi. xam nga la a une organisation démocratique dafa am li naan congrès dafa war bu fekkee organisation amul <laughs> mënul am la capacité demander à ses militants si lana de désigner ki waay maanaam eh waaw xam nga yaa <laughs> fekkee kuréel da am benn kuréel tey fii ci 7 ah. nga war a tànn kenn su ma war a tànn ku présenté journal waaw xam nga war a tànn. je connais les meilleurs. <laughs> waaw mais yow xam nga yow sa <laughs> yow yow sa entreprise privée la waaye démocratie ah. war ngaa mën am sa kàddu ci kañuy tànn yooyu nag dama jàpp ne ay dysfonctionnements yoo xam ne ëllëg dañ ko changé xam nga leen moo koy changé te yaakaar naa bokk na ci ci sur les réformes si on a la chance de pouvoir parler justement des réformes institutionnelles c'est la démocratisation dans les partis politiques maanaam bu ñu amee ëllëg. parti politique bu nekk militant bu nekk mën a teew wax xalaatam ci anam yoo xam ne ma manière transparente su boobaa jàpp naa ni yu mel noonu dootul amati. parce que ça permettra justement dina am kon kon kon.